Uras Info. Ribari Gao. Tewor. Uras Info. L'info à temps réel. Uras Info. Django du Notre force. Le traitement de l'info. kon mbokki Uras Info ñu ngi si ñu ngi live fii ci Gambi ah, ci yundum ah, nga xam ne mooy jumaay imam Habib Touré mi nga xam ne taalibe Cheikh Omar Touré la woon fii ci Gambi moom amal julli iid gi nga xam ne tabaski bi julli iid gi tey ci ah, fu mu ne nii takbir bi lañ nekk nii imam génnagut waaye ñu ngi continuer ci takbir bi euh, di ko déglu ba nga xam imam génn na ma ne ñu déglu takbir bi ba ci kanam sallallahu alayhi wa sallam tasliman wa lillahi alhamdu la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيلا ولله الحمد لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى سرية صلى الله عليه وسلم تسليما ولله الحمد لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا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 والذي أخرج المرعي فجعله بساء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعات سكرى سيسكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى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 الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنهمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهير إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من سكاها وقد خاب من دساها كسبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بسمبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله أكبر الله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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله mbokki Uras Info loolu moo nekkoon julli ji nga am seen sëñ Habib Touré nga xam ne am niñ leen ko waxee woon sànq euh, Cheikh euh, euh, Cheikh Omar Touré mi nga xam ne mooy muqaddam Ibrahima bu mag bu nekkoon Gàmbi fii moo ko fi samp moom moo nekkoon julli ju julli it ki nga xam ne nii ñu ngi ko doon taaxirlu ak moom waaye ba tey dañuy continuer ak moom rek mooy ànd ak moom xutba gi déglu ak moom xutba gi nga xam ne xutba ayit gi الحمد لله الغني الأحد المتجلي بالجمال في سائر الأيام والليالي الحنان المنان بالإيجاد وتوالي الأمداد الحي القيوم الهادي إلى سبيل الرشاد المبدئ المعيب وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد الله أكبر من كل تقدير وهو الحكيم القدير وأحمده سبحانه وأشكره وأشهد أنه ربي ورب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم رفيع درجات العرش وإن من شيء إلا يسبح بحمده وما يعقلها إلا العالمون وفوق كل ذي علم عليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مماثل ولا معاند جهازا تصيب قائلها على مراتب الإيمان وتنجيه من أهوال الإيمان وتسجده على فرائس الإيمان والصلاة والسلام على من من شأنه وذره كلته ونور قلبه وعين عينه أتاني المساني بصفات الحقية والخلقية سيد الكون إنسه وجنه عين رحمة ربانية التيسير نسير قاعدين الحضرة القدسية الموحد له بمطلق تقرير سيدنا محمد الفاكه القاتل من النبوة والولاية والتجريات بالخير المقدم على عالم ورضوان من الله العزيز القفار الناصره الحق بالحق في عالم الخير وشهادة في دقيق العالمين بشريعته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 si yàlla li nga xam ne mooy kéwéle kéwéle yoo xam ne kenn mënu koy lim kenn mënu koy takk yàlla mi nga xam ne mooy jëlal nga soob ci di nga soob waxtu yi nga ko soobee ni nga ko soobee te kenn ku nekk yàlla jox na la dëgg ñu ñuy dox ay may yàlla moomu kenn la koo xam ne moo wéetoo kenn am yàlla moom mi nga xam ne mi ngi ay taar ci mboolam bëccëg yi ak mboolam guddi di soppaakoon te xiwalaakoon ci xamal jum ñu xamal rek xiwal la ak xamal jum ñu yàlla dafa xamal doomu aadama xamalal doomu aadama lépp lu mu doomu aadama tam di leen tëbb nag ay mbëtët yoo xam ne mbëtët yi baatin la ay mbëtët yoo xam ne mbëtët yi saayam la yàlla moomu bi mu defee lii su fekkoon ne kuy dee la doomu a jàng waaye yàlla mi def tëbal yooyu daayima mu jub mu fi sax daayima muy jubal ne muy jubalee jëmee ci yoonu jub yàlla nañu yàlla jubal jëmee ci yoon bi moo sos mbindeef yi di dara bis dana ñëw mu ñàkkal ñoom ñëpp waaye bis dana ñëw mu delloo leen ñoom ñëpp ngi la cëpp lañ jëm yàlla yàlla noonu nag bokk na ci turam mooy kafuur mooy jéggi laakuur tur wëru nag tur wëru nag amu doon fekkoon ne nattu bi mooy yàlla bi xam ñu ko tub bii du xam fu mu def te loolu moo tax du bàkkaar réew lay naa bu tuub ko yàlla muy dofar mën na ko jóge nekk koo xam ne it ki bëgg jàmm yu bind ja dafa bëgg jàmm yi mu bind moom bëgg na it jàmm yu bëgg mooy borom xaras xaras nag mooy gàngu daay bi yàlla ba mu xemoot la xemoot yàlla ci xaras neexul am laaj nañ ci imaamu Malik radiyallahu anhu mu ne xemoo de xam nañ ko waaye nag ni yàlla xemoo loolu lañ ni yàlla xemoo ci xaras ñu ko misaal ci misaal moo xam ne duuru ko sax waaye pour nit mooy ni ruuxu te ci jëm xam nga kenn mosoo gën a gis ñu ne diw sàngam dafa rëy ba ruuxum nga teen ko kenn mosoo gën a dégg diw sàngam dafa làpp ba ruuxum nga rémb ko ruuxu ci jëm ni ruuxu xemoo ci jëmm nag bu fekkoon ne ñi mel ni ñoom misaal ni yàlla xemoo ci arsam ga dañoo wax ne ni ruuxu xemoo ci jëmm noonu la yàlla xemoo ci arsam day ku tedd moom yàlla di def lépp lu mu nangu jàmm bi dafa mel ni xëliba xëliba dañoo bind ci moom mu bind jàmm bi it mooy def ci moom du yàlla dogal ci moom rek loolu lu amoon ca asal mu soog a fekk moomu màgg na màgg mënaa du caageen màgg jum lépp lu màgg nag yàllaa la gën a màgg te yàlla lépp feeb lu ma gën a màgganteel waaye noonu lañ ko mën a wax yàlla nekk ku kereñ doon dogal lépp yit nag bur boobu xëy na ñu sant ko seetlal ko sant ko ci suñu laam sant ko ci suñu xol te ñu lay seede ne yàlla moomu kenn ku nekk seedeel ne yàlla mooy sa moy borom asamaan juróom-ñaar moy borom suuf moy borom bi def yëpp mom rek mo moo euh ci asamaan suuf mooy yëgati daraja amul lenn lu may lo xam ne sabbal ngi sàbbal sabbal gi nak ñi am xel rek ñoko may xam waaye lu way bari bari xam-xam xam-xam féetoo la ko xamul lenn looy gis lu may mi sabbal sàbbal كون سبحان الله موي تودنا ما سلال يالا والحمد لله موي سانت يالا ولا اله الا الله بور ام لول يالا يالا موم ماغي كيرو فيسو لام كام بيرو لام كام اك نيمو لام كام اك مادا كام لام كام ني سيري ري بن بور ام كود يالا موم رك ام بوك ام لين دوكو ديدو ام لين دو كيمانتي ak mom amul len du delo ak mom seere goo xam ne dama fàggul ki ko wax martaba yi gën a kawe ci gëm yàlla martaba bi gën a ci gëm yàlla nag mooy lépp ñàkk yow nga ñàkk lépp yow ci sa bopp nga ñàkk xamal euh, saxal xamal yàlla bu loolu mooy martaba bi gën a kawe ci gëm yàlla yàlla ñu ko yàlla may dana ko musal itam ci tiiti safara dana ko dëkkaloo itam ci àjjana firdawsi jigéen ak kawe loolu yëpp baatam laa ilaha illallah mbor koy ne yi julli ci yonent bi ki nga xam ne ci la mboolam julli dajee ci moom mbiri yàlla yëpp yàlla ci yonent yàlla Muhammad te mooy mbootum hikmaam mooy leer bi dafa mooy sangi sangi moom yonent boobu sallallahu alayhi mooy ki jàng fatiha ci meloo xàqu jaamu ko ci meloo xam mooy sangam bi def nit ak jinni yëpp ñoo jëmm joo xam ne jëmm yërmande la yàlla yónni na ko pour yërmande yërmande yonent bi mboolam jullit mboolam yi am nañ ci jullit ñi am ci beneen kaas ñi gëm yàlla am ci beneen kaas leen maqaama lisaan am ci beneen kaas yàlla ñu ci yàlla bor yonent moom bépp li ne ci àddina digal nga Babacar ak Omar ak képp ku dëggu seen dëggu illaalu wajara waade na ci safara waat na Abu Jahlin ak Abu Lahab ak képp ku dëggu seen dëggu illaa xale euh, moom ñu ne tu mooy mbindaala péeb yàlla bu sell moo koy liggéeyee péeb yàlla bu sell boobu nga xam ne fa nekk yan fan moom wétal ko مثل بو مثل مطلق تحرير لي نجويلي اك سخال لا مام يونتي محمد نورو موي كي بي تجول تا موي ولايه القاصه تا مو كاست لي نوبي وون تا موي دوبو وتو تحرير مام يونتي محمد مو مستصل دا والي مسلم ngeureum mande yalla yalla nek ci mom amin ya rabbal alamin ak ci ay sahabam yi nga xamne ñoo ànd ak moom di alak seen bopp di sonn ba dina lislam taxaw eh, sariya ay toggee na fi ñëpp ñu daal di ko matal kooku yàlla yàlla gërëm leen moom ak ay saxaaba allahu a kabiran walhamdulillahi kasiran wa subhanallahi الله أكبر الله أكبر الله أكبر فيا عباد الله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا رعاكم الله ولتعلموا أن خالقكم ما خلقكم عبثا إنما خلق الجن والإنس للعبادة والإيمان فجددوا الإيمان واطلبوا سيادته بالإحسان في كل مكان وزمان لان من أوكده متابعة نبيه سيدنا محمد عليه السلام في الأقوال والأفعال إذ هو عين تقوى الذي ينال الله قال تعالى لن ينال الله لهمها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منكم ومن أهم ذلك الاستنان بسنته في عين ألهيته الذي هو أعظم عينين المشروع في زمن أبينا إبراهيم القديم حيث أمر بسبب ولده إسحاق أو إسماعيل وفداه بالكبس الجديد فصارت سنة باقية إلى يومنا هذا وهو أفضل من الصدقة والعتق وقيل بالوجوب فمن تركها وهو قادر أزمة وتجيب بالنصر وبتعيين وتتعين إذا اتصلها بلسانه وبنية عن الشراء والمعمور بها قرون مستطاع غير حاجم منه والمستطيع من لا يحتاج لثمرها في العام عند مالك الإمام ولا يتصلف لها على خلاف في ذلك ومن عنده صوبان أحدهما يكفي بعد الثاني وشرطها أن تكون من النعم والأفضل الضعن ثم النعس ثم البقر ثم الإبل والفحل والسمين والأقرن أفضل من غيره وأقول ما يسوء الجسم من من الضعن من غيره وهو من الدعم ابن سنة وقيل ابن عشرة أشهر وقيل ابن ثمانية وقيل ابن ستة أشهر والأول هو المشهور وسمي من المعصي ابن سنتين وقيل ما له سنة ودخل في ثانية ومن البقر ما له سنتان ودخل في ثالثة ومن الإبل ما له ستة والنهي عن العرجاء والعوراء والبريدة والعرفاء ومكتوبة القرن إذا كان يبني والبشيمة والمقطوع الأذن وسندي وسمعاء والنعي عن القرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة معمول على نفي الكمال والشرطاء هي المسقوقة الأذن والمقابلة هي التي قطع طرف أذنها من من مؤخره ووقتها في اليوم من أيامها ثلاثة بعد صلاة العيد وسب الإمام وينبقي أن يبرصها إلى المصلى فإن لم يفعل ففي أجساء من سبها قبله قولان وآخر وقت صبي غروب الشمس من اليوم الثالث بيتولى صفحها صاحبها وإن كان إبراتا فإن اجتنب وهو قادر أسأه والجنس ما صنع فإن عجز اجتنب ويهدو وينوي ولا يقص النائب شيئا في نسير عمله وهو أي صف إضرار آلة على القوم والوالدين ويستقبل ويسمي الله عز وجل ويمر سكينا مرا مجهزا ويضعه في المسبه بحيث تكون القطرة إلى رأسه ويقطع البرقم والودجين ولا يجوز بيع شيء منها ولا يؤجر ولا يبادل وقد دعا صلى الله عليه وسلم بكبسين أملحين أقرين ينسلان في سواد ويبركان في سواد ويمشيان في سواد سبحهما بيده شريفة وقال بسم الله الله أكبر ها وعمل يعني وعما يضع من أمتي وعنه عليه الصلاة والسلام أسموا ضحاياكم فإنها على صراط مطاياكم وعنه أيضا ما من عبد توجه بأمنيته إلى مكان دمها وفرشها وزوفها حسنات مهدرات في ميزانه يوم القيامة وعن ابن عباس مرفوعا ما من صدقة بعد صلة الرحم أفضل من إراقة الدم وفي الحديث يتجلى مولانا في اليوم العيد في يوم العيد ليسوره المؤمنون فيعتق ألوفا من المجرمين والملائكة شهود ليشهدوا عزيم عفه على يداه وصدقة في العيدين أفضل من غيرهما بسبعين درجة والله يضاعف لمن شاء ويندب التكبير التكبير من سور هذا اليوم يسوق رابعه دبر كل فريدة ولفه الله أكبر الله أكبر الله أكبر وتهكير فطري لما روي أنه يعدل صيام ستة آلاف سنة وإحياء ليلته وحسن وتطيب وتزين ولو في حق من لا يصلي والمسيح والجهر بتكبير إلى رجاء الإمام أو يقوم للصلاة ومن جاء من طريق فهي من طريق أخرى وتقول الله الذي تساءل النبي والرحمة إن الله كان عليكم رقيبا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأنفقوا في سبيل الله واعلموا أن معيدكم ينفذ وما عند الله باقٍ وراعوا الصلاة في الجماعة بطهارتها وفعلوا خيرا لعلكم تفلحون آه. yéen jaamu yàlla yi wala ñun jaamu yàlla yi ñu déglu te settantal yàlla ñu yàlla boole sàmm ñi njëkk xam ne ki ñu bind bind ñi ngir font yàlla mi ñu bind bindu ñi ngir font làkk na mu ne afa hasibtum wa annamaa xalaqnaakum abasan ndax da ngeen njortu ne dama leen bind ngir font ñu ne ko yàlla delloo na la tontu lu tax nga bind ñi mu ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun bindu nga jinne ak nit lu ma ñu jaamoo ga nag abdullah ibnu abbas mi nga xam ne mooy xabrul ummati mu ne jaamu ji mooy ñi xam ko rek kon yàlla lim bëgg lim bëgg ci jaam bi moom bi la bind mooy nga xam ci nit mën nga xam ci xiwali googu baax na lool waaye xam ko nit nag ci jëmm ja ak ca ak ca tur ak jëf ya booba lañ gën a bëgg kon dafa bind jaam yi pour ñi jaamu ko te gëm ko kon nañ nga xeetal si jëm yàlla tey sàkku ak ngorolam ci jëf ji rafet gëm yàlla ci xol dafa mel ni garab gi nga jëmbat ci suuf garab soo ko jëmbatee nga bëgg mu naat da nga koy tos di ko suuxal gëm yàlla li koy tos mooy ragal yàlla di muy soog mooy jëf ju baax sa jëf ju baax mu gën a doolee ko rek sa gëm yàlla di gën a doolee jëf ju baax jaa moom jëf la jëf ju baax jaa moom wax la jëf ju baax jaa moom salaxe la jëf ju baax jaa moom jokk bokk la demet lépp lu baax la lu baax la ci gàttal seetal loo xam ne ku la ko def mu neex la ku la ko mu neex la ku la ko jox mu neex la koo ko jox mu neex ko koo ko wax mu neex koo kon kon sa gëm yàlla soo bëggee mu dooleem sàkkul ak dooleekum ci rafetal ci barab bu ne ak jamono bu ne barab bu am na ñoo xam ne buñ nekkee am na barab yoo xam ne buñ fa nekkee mën nañoo baax buñ nekkee ci yenn barab mel mu neex seen bakkan am na ñoo xam ne foog nañ ne weeru koor wala yeneen bis rek mooy jamono ju ñu war a topp yàlla déedéet jamono ju ne war nga cee topp yàlla li gën a fade nag ki xeesal gëm yàlla mooy topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wax ak jëf yàlla dafa wax yonent ne ko qul in kuntum tuhibbuuna llaaha fattabi'uunii yuhbibkumu llaah waxal jaami ne su fekkee bëgg ngeen yàlla topp leen ma yàlla bëgg leen te yàlla bu la bëggee bët bi ngay xoolee loxo bi ngay tikkee tànk bi ngay doxee nopp bi ngay déggee yëpp dana ko nekk ci yow kon topp sunna yonentu ci wax ak ci jëf yonentu nag dafa am ñetti sunna naa wax sunna jëf sunna jëf sunna wax ak sunna jëf ñëpp xam nañ ci sunna jikko ya nag moom sufiyankee rek ñoo ko jëf muy muy bi sufiyankee yi ñëpp yonentu sallallahu alayhi wa sallam mooy jëmmi ragal yàlla mooy jëmmi ragal yàlla ji nga xam ne mooy maye yàlla alquran nee na yàpp tabaski bii ñuy rey tey ak deret yi ñuy tuur lu for for man ta maye yàlla xam nga ñun ñoo ñoo ko rey ñoo koy lekk lay maye yàlla mooy ragal yàlla soo reyoon téeméeri xarta xarta ragalu la yàlla mayul la yàlla soo reyoon asib bay te ragal yàlla may nga dafa am benn waay bu ñàkk amul dara waaye xat mu nekk rek dana fexe ba xam gàtt te dus ka bi mu deexee nag benn mbokkam ñaan jàpp ba set julli ñaari ràkk ñaan yàlla yàlla sama mbokk mii bëgg naa nga wax ba fu mu ne yàlla wan ko ci guddi gi lu mel ne bis ki dafa taxaw ñu gis mbokkam bi mu ngi war daaba ju rafet jiital alal ju tedd ju bëri mu ne ko waaw yow foo jëlee lii mu ne ko de benn sa li war nii sama sarax bu ma benn jigéen ju màggat ma saraxoon ko la ma yàlla soppi nii muy war waay lii nag may gàtt yi ma doon tëbiskaa moom la ma yàlla sopp nii ñu nekk ay waruwaay mu nekk ay tiraanga kon addinaa ngoo kon sarax ma daxeew tabaski itam ku ko man def ko yeneen tumu ne koo xam ne man nga aar faam te aar faamu la jarul nga koo xam ne man nga aar faam te la bu la neexee nga dee di yëwut bu la neexee nga dee di na kon lu waay man ci loolu defal sunna yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam ci heure bi tabiska mooy ñu ay gàtt te loolu mooy li yoonaloon ci jamono si maam Ibrahima Xaliilulaay nga xam ne tey soo demee ca minam mooy bis bi ñuy sànni jam mu gént ñu ne ko rendi sa doom a ah, mu dem ba tër doom ji di rendi bi mu rendee ba siggi xamal ne nit gis mu reen doom ji taxaw léegi tey Jibril ñëw na bu yàgg rocc doom ji roxal ko xar loolu nag muy wéy bay tey ñi ñi def ko sunna muy ñu sunu boppam def dafa tey tabaski nag sarax yi gën ci ci la bokk xam nga wax naa léegi ni waa ji gis na benn màggat ko mu sabar ko seetut kii fu mu jeexal ndawam de sabar na ko ngir yàlla rek sarax soosu mu sarax la ko yàlla soppil muy waruwaay te waruwaay bis penc ku ne xam na ne du ñàkk xayma kon sarax lu mu for te bis kaa bu gën goneel jaam itam xam na ngëneel lool waaye li mu for for goneel jaam te bis kaa bu gën am na sax ñu wax ne dafa war ku ko man defula ko bàkkal ku ko man nag kooku moom dara war wax nañ ne sax su nekkoon ne jënd xarfaan gàtt bii nga ne xarfaan bëgg suba la guddi gi gàtt ba dee te amul beneen ñu ne wàcc na xëy na ba xeggal yow loo loo ci yéen a moo tax dee na xëy na ba xeggal sàcc nañ ko xëy na ba xeggal soko misiri nak war na la ndax alxuraan moo wax ne matal len sen misiri da ngay misiri ne rem jii kat dana afa war na wala nga ragnel ko nga am nga ay xar nga ne sama xar mii arfaan la ci bëgg xar moomu arfaan mo ko way bi ko jand hit it nga ne arfaan la jënd aha do ko soppi ha def ko delu arfaan kiñ ko digal nak mooy koo xam ne gor la waaye bi bi jaam di xam jamono xam nga alquran dafa waxoon ne abdal mam lu ka ngaa yàq dara se jaam dañ ko moom at lu dara am sagabaat moom ci jamono jii xam nga ne na ne xam ne jaam amul kon tabaski ñëpp la wax koo xam ne xattan la ko te nekkul di xaj ña nekk mbindam tey lañu war ay xër yu lañ ko ku nekk fu dul mbindam li ngay rey xarfaan lañ ko tuddee mooy otaxiya ki ko man nag mooy koo xam ne du waajowoo njëg gi ci at mi xam nga boo seetee ci natt boobu ñi mu war ci ñun kon bëriwul ndax koo xam ne ten thousand mbaa du ko di nga jëndee arfan doo ko wo ci at mi loolu ñu ko mën bëriwul waaw am na ñu wax ne jorul lépp soo ko xamul jorul lépp ñu ne ah bu fekkee soo lebee mën nga koy fay yaakaar nga doo ko fayee kon lebal ne sax bu fekkee am nga ñaari yiree benn bi doy na la mën ngaa jaay benn bi jëndee ko xarfaan xarfaan nag ci ñeent lañ koy def mooy juri kër mooy xar wuti gën topp bay topp nag topp gilam lu mujj ñu topp xaar waaye ay ganaar lu mu bëri bëri kenn du ko ñeent yi rek ci la ñuy tabaski te nag kuy bi moo gën bu dee xar baax na moo gën waaye xam nga itam kuy ma moo gën ba gën a duuf moo gën bi xam bee jël moo gën moo gën nag tekkiwul ne jigéen ja doyul ah kay moo gën tekki moo gën tekkiwul ne kuy laa gën tekkiwul ne tàppaaw ba ba baaxul xam mi tàpp baax na xam mi làpp baax na xar bi amul béjjën te muy njukk li moom itam baax ca noonu ca xar ya ca bëy ya ca mbay ya li gën a néew nag ci xar mooy jason bu dee nag wala bëy wala xar mu nekk sa biir jason ci xar ñu mooy xar bu xam xat xar bu xamee xat mat naar faat ñu fukki weer mat naar faat ñu juróom-ñetti weer mat naar faat ñi ne juróom benn weer mën naa faat waaye li gën a siiw mooy xar mi na xam fukki weer ak ñaar bu dee bëy na xam ñaari xat ñi bu dee bëy mooy bëy boo xam ne xam na xat ba bi bu caatam ñaareel ma bu dee nag ñu ne mooy na woo xam ne xam na ñaari xat ba tax caatam ñetteel bu dee gilam mooy gilam boo xam ne am na juróom benn xat sooy jënd arfaan nag bi soor nga xam ne dafay sox bët bu xool xam ne bii dafay sox boobu tere nañ gàtt bi nga xam ne dafa pat nga xam ne benn bët ba gisul boobu tere nañ gàtt bi feebar boobu bi bi mbigit bi damm de làcc dafa damm tamit baax na gàtt bi fër boobu tere nañ gàtt bi ndagg nopp bi ak ger bi wala ñaxar nopp bi bu fekkee nga xam ne nopp bi dafa dagg boo xaajee nopp bi ñetti xaaj benn xaaj ba ba dugg ci bu ñaareel ba doyatu dañ ko xar benn xaaj bi boo xaajee nopp bi ñetti xaaj benn xaaj bi xar nañ dugg ci bu ñaareel ba doyatu bi boo nattee génn bi nga xaaj ko ñetti xaaj bu nga xam ne benn eh, bu dagg na ba dugg ci bu ñaareel ba doyatu waaye bu xamee ci xaaj ñetteel ba rek kon boobu doy timis gi nag bi ñu jullee ba noppi gannaaw bu imaam rendee foofa la tàmbalee foofa tàmbalee ci euh, ñetti fan la kum neex tey kum neex ren suba kum neex ren di suba moom timis gi ñetti fan la bu lee neexee bu fekkee da am ci xóoróor a tey man ngaa ba suba wala nga xaar ba gannaaw suba wala yow amuloo aslan mën a amuloo tey waaye am nga suba ren bi suba fépp balaa jant baa sor boo amee ren boo amee ren bi kenn ku nekk nag yaay ren di sa bopp sa arfa jigéen la jigéen ji xam naa arfa bu fekkee mën naa ren di néeg naa ren di na ren di boppam waaye su fekkee mën ngaa ren yow nga wax ku la doy na de waaye la nga def nag bon na bu fekkee da lottu nag mënoo rendi wala mbir bu la rendi kon bon rendin euh, utal ku la ko indil sa arfaan yow mi nga xam ne yàq noo rendi bën ki gën dara dara dara pour ne dañ la ko fayee rendi gaag bes gaag déedéet rendi nag mat naa xam ne mooy nga dagg purax gi ak ñaari sadet si law daaj te it nga rendee ci purax gi waaye bu rendee ci loos bu rendee itam ci ndabal dox te li ngay rendi it jubale ko xibla nga wax bismillahi wallahu akbar rendi nag na mu gën a gaawee mu gën a baax yonent mu ne yàlla suñ gën a rafetal ci lépp la su ngeen di rendi rafetal leen seen ak rendi ñu ne ko ma yónnee ko reer yi ci rakat mu nga reer bi dafa métti na gaaw kon loolu mooy nekk tabaski duñ ci jaay dara dara dara amul yoore amul wattante man xar laa rey yow béy nga béy rey ñu wecc ma jox la yàpp xar nga jox la yàpp béy kii jox la yàpp nag nga jox la yàpp lii amul ceeb man ngeen man ngeen naa man ngeen naa joxante at yi rek yonentu nag ñaari xar la Tabaski awoon ñaari xar yi dañoo weexoon comme weexaayu xorom weexaayu xorom noonu lay weexee euh, ñaari xar yu am seen xugg dafa ñuuloon seen xóom dafa ñuuloon seen coxotol dafa ñuuloon moom ci loxol boppam bu tedd ba moo moo ko rendi loxol boppam bu tedd ba من بسم الله اللهم حسهني وعمل لم يدع من امتي من بي بروم لا ابي اكو خامن تبيس كو تي سما خيت كو خيت ينت كيف كو خامن تبيس كو لا ينت تبيس كا لا ينت واخنا لي ماغال لين سين تبيس كي دا موي سين ورا واي كسرا كنا يوم الخير جيس نغي سيرا ها واو جينكو ينت مثاليه tiit loolu képp ko am xel moo gën a sew njariñ moo gën a yëngatu jaru koom ñaw lool ratax ba ni yorof laan te nag mu ngi tiim safara bu ko jéggi àjjana nga jëm bu ko jéggi wut safara la am na ñoo xam ne danañ ko jéggi kem talaay lu nekk ci àddina danañ ko jéggi kem melax am na ñoo xam ne kem oto am na ñoo xam ne kem kii dox am na ñoo xam ne dañ fa nekk di daragu ak seen dugub waaye danañ am na ñoo xam ba dem ba nekk suuf te moom kuréel ci rek xam nga muy mel ni pompe tim ndox kuréel ci rek ci ndox mi ba moom mi ngi tim safara kuréel ci rek safara bi eh, te xam nga lim sew sew. ak lu ma tarantaam bu daloon sax xel bi sawar na waaye xam nga loo xam dafa yëngatu di biriñ barañ sew lool ratax lool boole ko yëngatu lool loolu moom lu waaye dof dof xam nga ne njaboot ji kon nag li ko yombal mën naa yittewoo Seydina Omar ibn Xattaab na radiyallaahu anhu yonentu wax na ne bu jéggi siraat siraat nga ko gaawal balaa sa leer gi dafay sa sa sa leer gi dama loolu mbir la ci moom. kon nag waruwaay yooyu si euh, tabaski yii ñooy nekk waruwaay te nag gis nga nit nga xam ne fii ci àddina mën ngaa am oto yéeg yéegal keneen sa waruwaay bi itam ku ci yéene man bi ku ci yéene nga koo bokk ak xam nga sa tabaski man nga ko yéene sa bopp rek man nga ko yéene man nga ci yéene sa jabar yëpp man nga ci yéene say wëju man nga ci yéene say doom mën nga ci yéene say taalibe mën nga ci yéene say sëriñ mën nga ci say dëkkandoor yaa xam ñu ci yéene rek ki la yor ma feeyam yàlla ma dama ko def mu tolloo waru waayu toll noonu xéega xam nga bokkaale ci yoon dafa am ak bokkaale ci njëg bokkaale ci njëg moom ci gërëm ak nag juróom-ñaari nit mën nga ñoo jënd ginam def ko muy seen tëbis ñi def ko juróom-ñaari saabu juróom-ñaari nit man lañu jënd nag ray ko def ko ñu juroom ñaari saam ngi seen tëbsi waye bu dé xar nag wala bëy man na bokalé ci yoon waye man na bokkaale ci njëkk do ci saw saw mo ta ci dafa turam yonentu mu na amul ben jaam bo xamee ne jubali na qibla tëbiskaam do may dereb ja ak sa ministre ak kawar gi da fay nek ay yiw yo xamné dañ ko ko téwalal ci PCM keroog yow ma mooy bis ba nga xam ne dañoo peese jëf yu baax yi ju bot plateau bu nekk yem na fi jant bi fenkee ak mooy soxee yaatoo na ni asamaan ak suuf ah loolu jëf dana jaxaat de bi def def jëf ju ñuul ji jëf ju bon ji dafa ñuul kukk lëndëm ni guddi eh bien yàlla bëri sutura bii def jëf ju baax ji dafa leer naññ ni bëccëg nga xam ne lu ci tegee nekk ab xàngaar yi ko di mën am sutura rek su fekkee nag ne dañ la peeseel sa tabiske eh, eh, kii ba eh, deret jaaj sa bini saak kawar ga lépp nekk aw yiw te na ko yàlla fuulee yàlla ko xam dëgg dëgg rëy na ba tax kon tabiske képp ku weeree rek xëy na ci sa njaboot ñëpp xaj nañ ci Ibn baas nee na amul benn sarax gannaaw jokk bokk du gën tuur deret gannaaw amul benn sarax gannaaw jokk bokk du gën tuur deret ah kon jokk bokk rëy na deret nag du caageen ci tabaski rek gis nga léeg-léeg tuur deret sarax nga mën koo rey gàtt dafa baax bu dul tabaski rek waaye daal amul benn sarax gannaaw jokk mbokk bu gën tur bi rek waaye sarax bi nga jël nag jox ko sa mbokk sa néeg ndey wala sa néeg bay ah sarax boobu nam toll yàlla ko yonentu wax na ne ci bisab xeet yàlla dana feeñ pour jaam yi siyaare ah soo bëggee siyaare yàlla nag siyaareel jaamam yàlla waaye di des ci sa dund bi ngay jóg ne yàlla laay siyaare bi doo ko kon soo bëggee siyaare yàlla siyaare jaam yàlla kon bis ni ki tey yàlla dana feeñ pour jaam yi siyaare dana goreel ay junne wuluuf nag la junne yooyu moom ay junne mën naa jur ay million mm. ay million mën naa jur ay milliards ay ay jullit yoo xam ne ay mujrim lañ ma ay criminal ñoo xam ne dem nañ ba foog ne dootul baaxati xam nga nit dana yàqu-yàqu bañ foog ne ci ko mu goreel ko dugal ba tax na kon yow bu nit mel nu neex ba kanam ba nga yow am sañ-sañu di nga àtteel nag ci safara la jëm nag su ko yàlla ba leen yàlla bu bind yooyu yàlla da goreel xam nga du nekk rek baax na mu ay seede malaayika yi ñooy teew nekk witness seede njëgëm lu mag loolu nga xam ne yàlla mu ko jégal daal saraxe ci bisab ñaari xeet yi mooy tëbiskaal weeru koor moo gën saraxe ci juróom ñoom ci juróom-ñaar fukki juróom-ñaar tey dërëm bi nga saraxe ci tey wala suba wala beneen bis mooy xale dox bu ndeewantaan lan leen sarax ëpp na juróom-ñaar fukki daraja ci li nga sarax ci beneen bis bu nu moom loolu nag bu nga yéem yàllaay fur di ko sot bëgg nañ itam nag lu am solo man lay fàttalante xam naa ku yàlla baaxee woon ngeen jullee ci mbooloo man na la fàtt hmm. li ko tàmbalee ci bisatee yi duñ jullee tisbaar duñ jullee da Allah akbar Allah akbar Allah akbar nyetir yoon ba julli juróom yëpp jeex tisbaar noonu la takkusaan timis gee nga def ko tey ci aset ji ëllëg ci arab ji altina mu jeex ki nga xam ne dafa julli suba moom ca talaata ja ca lay jeex ci yett fan lay doon loolu moom la kabar yooyu tuuti na de allahu akbar allahu akbar allahu akbar ñetti yoon waaye la ci yàlla denc moom rek moo ko ba tax na kon mat naa fàttaliwante mat nay fàttaliwante bu la fàttee nag ci bi nga ne asalaamaaleykum bi nga julee tusubaar fekk balaa nga julee tàkkusaan ko sa xel bi nga julee ba balaa ngay julee timis fu ko sa xel dajee dab ko fi nga julee timis ba balaa ngay julee gee bu ko sa xel dajee dab ko naka noonu diggante gee ba fay kabar yàlla la ci bis bii itam dañoo bëgg ku am arfaan ku nekk soo xëyee nga xoor xam nga léeg-léeg na naan dañoo xoor la arfaan xar mi duñ ko jox mu lekk duñ ko jox naan loolu moom jumti la déedéet xar moom yàlla togg ko jëf yow borom xar mi lañ togg jëf yow lañ wax nga xoor gis nga yow mi am gàtt am arfaan yaa am doy arfaan nga xoor xoor boobu de diggante fi nga xooree ci fajar ja ba ñu rey tabaski yi nga dog ci yàpp tabaski ba xam nga loolu guddul matu sax ngeen wàllu bis waaye tolloo na ak xoor juróom-benni junni caat juróom-benni junni caat xam nga de waaw yàlla dafa nekk bur bu baax li mu ñu xam ci ngërëm dafa bëri guddi gi dañ bëgg ñu dundal ko. gis nga pour julli gee def sa baax wetam tëdd fajar jot nga dem julli ji fajar sax dundal nga guddi hmm. waaw dundal nga guddi hmm. kon rawatina nag ki julli timis wasifa julli gee def yeneen yeneen yeneen yeneen julli ji fajar kooku dundal nga guddi hmm. te am na ñu yàlla may loolu guddi guddi gi ak guddi guddi guddi ñoom ñu ngi ci loolu yal nañu bari si sangu yi itam bëgg nañ ko. comme niñ ko ni ngeen ko xamee rek balaa ngay dem ci xeer sangu sangu mat na di waxtaanee tuuti nag moom itam gis nga cangaay ci lislaam fukki cangaay la ak ñaar ñeenti farata la la ñoo tënkee ca xalil janihaat ni janaaba ak nifaas ak xaydu ak kufu ki amee janaaba sangum farata la ki amee gësin sangum farata ki amee mbërëb sangum farata la mu tuub sangum farata am na sangaay loo xam ne sunna lañ moom la ñu tënkee ju imaa jugi mooy jumaa te ngaayal jumaa sunna la ihraam xarmal xaj te ngaayal sunna la arafa te ngaayal arafa am na ñoo xam ne ngëneel la muy ay yu bësi muy ay day sangu ñaari xeet yii ak booy tàbbi mag ki siituwal amatul ma foofu mooy ci hôtel ba nga nekk rek bala ngay dem ci kaar nga sam loolu euh, sunna la nekkee noonu yow mi doon sang néew gannaaw ba pare nga dem sangu ji ngëneel la ngëneel laay wax mm. naka noonu jigéen ci am na jàmm jorgeel tëngaayam beneen la sangu fukki tëngaay ak ñaar yaa wutee waaye melokaan bi benn mooy raxasal sa loxo sa sa loxo ndeyjoor ba ci sa takku jara ñetti nga daal di xobbeeku xobbeeku mooy nga tàmbalee ci sa lutt sa jumbox bi ci say bëti nga raxas ko lépp ba set ci kanam ak gannaaw nga daal di jàpp njàppal benn benn dugal sa loxo ci ndox mi tàmbalee ci sa ndox ndox di mooñ ba ci jëwi tàmbalee ci jëwa mooñ ba ci ndox gi tàmbalee ci ndox gi mooñ ba ci jëwi ay sa bi ci digg topp wàlla ndaje ba mu egg nga topp wàlla càmmoñ ba mu àgg loolu mooy sawum yoon te gars ci yoon yëpp dem noonu bëgg nañ laa las ko xam nga las ko dañ ko bëgg di heure bu nekk waa rawatina ci xeet ji le ak taar bu yére yu rafet ci buntab xeet muy yére yu xees dana dafa ñuul yére jumaa mooy yére yi weex dara dara ay sagar bëgg nañu itam nag booy dem ci julleekaay ba nga dox ak tànk waaye soo waree it nag terewuñ ko ndax bis bi bisab taar la te war nag lii ko bidal waaw xam nga bidal gi am solo muy sunna bi waaw bidal gi muy sunna bi te it nag njàngale bi ci nekk ndax xam nga ku ko xamuloon dama ko xam ku ko fàttali fàttaliwu ba imaam ñëw bañ taxawal bi bu ñëwee yoon tam dañ bëgg nga delu benn yoon ah loolu daal lañ bëgg nañ bokk ragal yàlla yàlla mi nga xam ne ñu ngi laajante ci moom ñu bokk itam ragal mbokk boobuñu te dagg xam ne yàlla mu ñuy fub lu heure ki ne fub lu heure bu nekk nag gis nga san nokki yi ni mu àndee ak yow noonu la yàlla àndee te xam yow sooy booy nelaw yaa ngee nokki soo yëgee yaa nokki boo yëgul yaa nokki kon foo ma a nekk boo yëgee yàlla yàlla nga lay gis mu ngi fuglu soo xamee soo xam nañ koy tudd itam tudd bu bare bëree bëri loolu mën na ñaa gutal ak texe ñii dundale itam ci yoonu yàlla kenn ku nekk fexe dundale ci yoonu yàlla ñi xam ne li ne fii ci ñun mooy ñun ak adduna bi ak suñ koom-koom dafay jeex la nekk fa yàlla moom du jeex de kon nag nañ dimbalante ci yoonu yàlla nañ sàmm itam julli yu juróom da ko defee ci mbooloo it di ko ci laab di defit lu baax ndaxte la jiite kon bon yal nañu yàlla boole méngoo te boole méngoo suñu bit yal nañu yàlla wan dëgg muy dëgg mu wasagal ñu ñu topp ko yal nañu yàlla wan neen muy neen mu wasagal ñu ñu teel yàlla nañ nekkal yàlla mu nekkal fu Info xibaar yi gaaw te wóor Uras Info l'info à temps réel. Uras Info jàngat yu xóot te dëggu notre force le traitement de l'info